ko <laughs> Palli. Mhm. cuun xale yi bu ñu demee lu ñuy uti dañuy dem uti tey xale boo ni kaay kii boo kaay dem Canada kii nga ni ko kaay dem États-Unis kii nga ni ko kaay dem Australie kuy bañ boo demee Canada amul chef d'état ba ma nga Angleterre boo demee États-Unis vote populaire compté wul seen yoon newul si lool seen yoon newu si mhm. li li leen yitteel mooy koom gi te ñun koom googu donc démocratie bi ñuy bëgg chaque jour di ko yuuxoo di ko jooy en fait donc ñu bëgg a wax ne du c'est pas ça le plus important. c'est loolu waxuma sax ne c'est le économique qui est. waxuma sax ne c'est pas plus important dama ni loolu. Hmm. perte temps là. parce que ñun yàlla daf ñu may. Hmm. am nañ ay institutions yu dox président de la république Macky Sall bi mu ñëwee ni dafay arrêter euh, élection yi da koy daax mais conseil constitutionnel daf ko ni non. Hmm. mu dellu ginnaaw. <laughs> te mom mo fi ëppoon doole conseil constitutionnel ne ko non. ok suñu ay institution ñu ngi dox. li may euh, li may insister bàyyi ma ko boobu ba léegi mooy. sunu doom yii dee tey Sénégal réew la moo xam ne ay ndaw ñoo fi ne xaaju sénégalais yi amaguñu fukki at ak juróom-ñeent boo jëlee ñetti sénégalais boo jëlee ñeenti sénégalais ñetti yi. amaguñu fanweeri at ak juróom 40 pour cent sénégalais amaguñu 15 ans mais ANSD ba léegi dañ ñoo génneel yeneen chiffres yu gën a garaaw yu gën a garaaw. Mm. ñu ne ñu taux d'occupation Sénégal ñiy liggéey 47 pour cent maanaam boo jëlee fukki sénégalais ñeent liggéey boo jëlee juróomi sénégalais kenn ay liggéey loolu nga foo bëgg dem ak loolu mais yooyu mooy vrai débat yi loolu soo ko bàyyee. nekk ci ay judiciarisation mm. nekk ci ay élection législative mais yaa ngi hyper temps Le temps amul euh, man liggéey ak euh, président Macky Sall juróom-benn at mm. am naa tuuti lu xam ci état ak pouvoir tuuti rek bari. liggéey naa tout ci loolu gis nga projet état bi gën a ndaw léeg-léeg ñeenti at la lay pétrole bi Abdoulaye Wade moo signé woon contrat bi 2004 2024 lay soog a génn 20 ans euh, terre bi Macky Sall moo ko signé woon 2016 2023 la commencé daw juróom-ñaari at. BRT bi Macky Sall moo ko signé woon 2014 2024 la daw fukki at lycée yi ñu fi tabax ak ay pont ay bu si nekk minimum ñeenti at. ñeenti at waaye léegi yow nga am mandat juróomi at.

xamuñu lan mooy ay rapport xamuñu luy cour des comptes xamuñu luy loi de finance rectificative xamuñu luy loi de finance initiale xamuñu luy ñooñu xamuñu yooyu yow bàyyil say expert gérer ko bàyyil ñoom kuréel yooyu doxal ni ñu war a doxalee ku si warul laal nañ jël sa rapport jébbal ko yoon yoon def liggéeyam waaye yow si li ngay ne ñu gis ni que lii la yitteel parce que temps dafa cher

Alhaji Fall gis nga bon gis naa seen ministre des finances Cheikh Diba mu ngi gisante ak banque mondiale ngir ñu def seen revue par rapport ak projet yi nga xam ne dañ ko financé mais ban investissement nga gisagum ñu def non dafa teel na nag six mois ah déggoo ma la da nga judd rek ne ca <laughs> mais six mois nga fay fekk budget boo xam ne am na lu ñu ci jotee exécuté da nga war a def chamber, xam lañ fi fekk xëy na après doo ko commencé nag euh, bon en attendant seen projet boobu génn ah mais bien sûr mais bien mais bien sûr ba ba ba bi bi gis nga gis nga état loi de rectificative budget bi ni ngeen ko il faut rectifier leen waaw rectifier la sans problème bi amul am ah amagul légui euh gis nga soo ñëwee fekk tool bi am na lu ñu fa defoon tuuti tuuti yow nga ñëw ne boo ñi doon def daal xamuñ dara ñu jëlee leen fa yow nga ñëw léegi ci tool bi commencé ileer bi dafa nàngam góob gi nàngam tracteur bi sàngam essence bi baaxul walla léegi yow yow kañ ngay ji jiwoo ko de léegi boo jiwul te nee nañ la yow boo jiwee dara ci tool bi hmm. balaa muy sax ba nga mun ko wit ba mun ko jeriño ah ñenti at day ñeenti at la de vrai projet wu état ñenti at lay def vrai mon ak projet taf yeungal ñeu def première pierre euh, projet bi fi président Macky Sall bay hmm mom moy poru ndayan bi janvier 2023 por bobu lu mu bon bon ñenti at la jëm

Nous ñep nañ ñu wo suñu énergie yep ñu def ko ci animation incitation ak stimulation économique su lolu amé rek da ngay gis yenen patch yep day commencer di di noy di tundu yow nga ñëmé tay jël sa njabot ne dem def fa ben week nga ne ah lutax euh, vacances yi di ñëw sax nañ programmer dem Las Palmas ku ñëmé <laughs> réew mi toll nañ koy waxee. dégg nga loolu mais lii mooy danger euh, nit dafa war a gën a am nit dafa war a enrichir su enrichirul day appauvriru te su appauvriree rek boo moytul dafay dund dund bu bu bu tuskare bu bu bu torox ñun tuskare ak torox rawul sunuy doom jën yi di leen lekk ñu ko doon dégg de yàlla mel ni daf ñu ne hey. yen da ngeen ba da ngeen di du dumóoyu xaar leen yàbbi ya suñu doom yi fii mbuur ak wakaam loolu buñ doy lu ñuy doy ok le débat économique c'est vrai que c'est très très important comme ni mu koy waxee mais ñu ngi jëm ci ay élection beneen mooy askan wi tam boo leen dee déglu day mel ne euh, débat économique daf leen di xaw a du leen intéressé trop parce que ñu ëpp si ñoom ko wax mu ne comme mi balaa dox faaw ñu sàcc suñu alal lañ leen jàpp ba pare day mel ne tam nit ñi ñooy imposer en un moment donné nguur gi si wàllu woowu maanaam